katina coow li coow li ci coowal covid 19 bi day mooy ñii ñoo gën a néeg ñiy dompat néew tribune yéen a kaay daal di xëy jox kàddu Boubacar Camara moom Boubacar Camara mu toogal ne faax ma wax ak yéen ne leen nag yéen sénégalais yi imaginer leen benn ambulance boo xam ne dafa fees dell ak malade yoo xam ne daanaka ña ngay sukuraat manqué nag lépp amuñu gaz respiratoire ay malade yoo xam ne ñoom ñëpp wopp covid moo leen dal ca wetuk ambulance googee mu am ñoo xam ne ñoom ñoo a assister malade assisté malade ya askan wi ci boppam ñoo leen nattal ne leen jàppale leen ñii nga xam ne wopp nañu loof nañu te nekk ci biir ambulance bi mu ne ña nga xam ni nag ay passager clandestin lañ nekkoon ca biir ambulance ba wóoroog médecin yeeg infirmier waaye terewul lépp loo xam ne moo war a faj war a jaar ci loxol médecin ñoo ko yor Boubacar ne passager clandestin du kenn ku dul ñi nga xam ni dañoo yor ay fonction officielle ci réewum Sénégal ñoom passager yooyee waroon jàppale askan wi daal di nag def ab groupe boo xam ne daanaka mbiruk affaire moo leen tax jóg lijjanti ci seen biir au lieu nag ñu daal jox médecin yi ñu bokkaloon ambulance ba ñu faj ña loof dañ leen jox as tuut la ca ëpp ñu daal di jël def ci seenu gafa Boubacar ne lii mooy tiire ci ambulance bu yor malaat waaye lii ci boppam mooy dompatub néew tribune yéen kaay ne ma Boubacar Camara jeexagul ak ñun de xamal nañu nag ne ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñet ci milliards loo xam ne nag ña ngi ko nattee ca gafa covid ba daal dinañ koy jébbal nguurug Sénégal mu daal di koy dolli ci gafaam ngir mën a wéyal doxalam ñaar fukki milliards ak juróom ma bàyyeekoo na ci gafa Covid 19 bi état bu Sénégal daal di koy jël daal di koy fayalee ay borug location ay service am yéen kaay bi des bi ne ma dañoo yëpp ministère yi waaye ñëpp tibb libération yéen kaay na ma ministère des sports moom ñoo xadd kaaba ga ndax nag ñoom ci wàllu cash lan doon naxee nit ñi lu tollu ci ñaari téeméer ak juróom ci millions yoo xam ni jébbaloon nañ ko fédération sénégalaise bu basketball juróom fukki million ya fédération ba da ko delloowaat dage ba ba ñu demee ci afro basket ba amul lenn loo xam ne firndeel na ay dépense def waaye tam hébergement libération ne ma lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukki million ñu daal di koy fayee ci yaama neex cour des comptes ne leen attention téeméer ak ñeent fukki million manqué na de yéen kaay bi ne man ak waaye daaj ba andi na ciy leeral ndax xamle na ni bu de yenn yi fay na leen chèque wala virement yenn yi moom ci cash la leen doon fayee wala it yenn yi muy xaalis wu doxoon diggante ministère beeg fédération bi mu naan leen téye leen li ngeen ma ameel ma dolli leen loolu nag na ba bi doon sàkku ab tolérance administrative 24 heures kàddu Mamadou Lamine Diallo moom Mamadou Lamine Diallo muy xam le ni gars yi nag dafa mel ni dañoo xeeb lool la nga xam ne tibb nañ ma ne la dërëm buñ ko jëlee ci gafak nguur goo xam ne ñëpp ko bokk scandale bu rëy la rawatina ak ñuy wax waxu junnig milliard Mamadou Lamine Diallo naan askan wi manifester leen rassembler leen def leen ay concert de casserole liggéeykat yi nañu def ay grève ndax nag xaalis bi nga xam ne tibb nañ ko ñun ñoo ko moom ñun liggéeykat yi assemblée nationale dafa war a taxawal haute cour de justice tribune yéen kaay ne en tout cas yéenekaay loo ci man ci déggit moom président Macky Sall ma ngay dund nag la ko saf ca diwaanu Tambacounda moom Sall ngaari lam tooro nag ma ngi ca campagne am fas yéene investir ci Tambacounda ci juróomi at yi ñu jëm l'info yéenekaay ne Macky Sall ngay neexal waa bundu ne leen ab pôle économique bu jëm kanam laa leen fi bëgg sampal diggante 2023 jàpp 2025 programme boo xam ne nguuru Sénégal moo ci nar a jàppal boppam juróom fukki junni ci liggéey ñu war ko samp foofee ca Tamba Le Soleil yéenekaay ne moom Sall ngaari it ma ngay inauguré camp bu guddi Siri xam le ni kon kaaraange gi dañ ko war a yokku l'indépendant yéene kaay na ma ca la sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke nekk police bi daal dina koy sayel ca Touba ñoom Safinatul Amaan ak Xudamul Xadim moom sëriñ Muntaxa daal dina leen fi jële daal di fay teg police ak gendarmerie ngir ñu wutu kaaraangey Touba booba laas yéene kaay ma ngi may xamal ne président Macky Sall jeexagul de ma ngay wane ay jëfam l'enquête quotidien daal dina saa si tembe kay téeméeri fan gannaaw bi ñu falee Amadou Ba ñoom ñëpp ngi calli calli ci plateau télévision yi ngir wane réalisation yu président Macky Sall Sud Quotidien ne waxtu woowu moom mooy élection présidentielle saa si tembe fu mu toll élection la boo xam ni ba nii kenn xamul ku cay candidat réew mi Quotidien ne laataa loolu nañ wax ci parrainage bi parrainage bi nag nekk na loo xam ni kenn bëggul lañ ko tuddee du politiciens yi ci réewum Sénégal du CEDEAO waaye ba nii kenn mënta wax ci luy sayal parrainage bii Walf Quotidien ne ma boo moytul ma ngi ca sóobug beneen mandat de waaye pression bi ma i koy laale fu ne moom président Macky Sall gaa yaa ngi ci ak i casserole les éco yéene kaay ne ma boobu saa si tembe na kañ lay wax candidature am bi daanaka dafa mel ni moo leen taqale moom président Macky Sall ak parti de gauche yi daal ñuy nag freiné yéen ci alliés yi nga xam ne dañoo bëggoon daar daar moom Sall ngaari mu xam le ni candidat la Sud Quotidien ne déggu leen ma yéen de ñi ngi jëm ci présidentielle boo xam ne mosu fee am ñi ngi jublu 2024 te ba nii kenn mënta xam dëgg-dëgg ñan ñooy candidat ci yooyu la élection source aane la ma xam te mu leer ma moom moo di fii ak ñaari ayu dëgg-dëgg coowal Sweet Beauté li fu muy mujj moom juge bii di Maham Diallo saa si tembe nag mi ngi yor élément yëpp fii ak ñaari ayu bés moom Maham dina leen taaskan wi mbaa mu firi leen suuf su aane ma ni ki démb daal daal dinay boucler instruction bi moom Maham Diallo jeexal na ca ña mu doon déglu ci dossier Sonko ak Adji Sarr li maître Dior Diagne ak maître Pape Sow moom Maham Diallo dégluwu leen ndax jàpp na ni amul lenn loo xam ne élément de preuve la muy mën a sukkandiku ngir mën a déglu ñaar ñooñee ñoom avocat ñaari parti nag am nañ diirub ñetti fan yéene bi ne ma la leen ca neex ak leen ca neexul jébbal ko juge bi Maham Diallo mu dese ko fukki fan ak juróom moom Maham ngir wax nag ab non lieu lay joxe wala itam dafay yóbbu mbir mi ca chambre criminelle bu tribinal bu grande instance bu ndakaaru ngir nag ñu àtte Ousmane Sonko ak Adji Sarr tribune yéene kaay ne ma laataa loolu ñu ngi jëm ci ëgg météo daal di koy xamle ministère de l'élevage di sàkku ñu yor ay jur ñu sàmm leen l'observateur ne ëgg bajo bi day taw la boo xam ne day am ca du waxtoom météo jàpp ne diggante tey ba aljuma taw yooyee mën na am ak sedd gu métti ci réew mi L'Obs ne fàttaliku leen ni amoon na fi diggante 2002 2013 ak 2018 jur gu bëri faatu woon rawatina ci ranch bu dolli direct news ne ma fàttaliku leen it Serigne Saliou Mbacké fukki at ak juróom ci ginnaaw day la làqu woon moom boroom jurul boroom njàppandal moo fi andi 2002 ay meuble yoo xam ne jëlee ko ci France ngir julit yëpp am jàppandal ci seen jaamuk yàlla yéene kaay bi ne ma boo bëggee xam kuy Serigne Saliou demal xool la mu def ca daara ca xel kom nitub yàlla la boo xam ne xalifaa gi ñu ngi ko ko jox ba sub aljuma moom Serigne Saliou génn àdduna ba sub aljuma fukki at